wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin bokki Sénégal bokki jullit yi ñoo ngi nuyu waa Sénégal gépp di ndokkeel itam suñu bokki diine yi nga xam ni yàlla dogal na ñu nekk ci weer woo xam ni weeru gàmm la muy weeru yàlla màggal na ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam Sénégal itam jël tànkam teg ko fa ko mag ñi tegoon ba du nangu mukk kenn gënu ko bëgg yonent bi ñu di ko waajal nag réew mi yëpp bokk ko ndax lépp mu ngi delluwaat ci nite nite nag bu ñëwee ki am pas ak ki amul pas ñoo ci bokk yem waaye nag mu doon loo xam ni ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom la ko yàlla jagleel ñu war a tiitaroo seen yonent boobu kon ñu ngi leen di nokkeel ci weer wi ndax gàmmu gaa ngi dëgmal si incha allah bi ci nyari moy ñaari bu ngeen gisee ñu yekki kaddu ci jamono yi du rek bëgg wax waye dafa am luy xew lo xamni buñu ko leralul ba mu fireku ba nit ñi mëna dégg li xew xam li taxit ñuy wax tuuma mëna ñoo top te wolof miim day du ragal waaye dindi tuuma la moom nag information boo xam ne mu ngi circulé ci internet bi ñu waxoon ko itam ci revue de presse ci le cinq bi passé yu bërki démb Ahmed ay it wax ko jële ko ci benn journal bu ñuy wax réew mi quotidien mu wax ni Njaasaan ak Tiwaawoon ak Pire ñu ngi waaja a wàcce ay kaamil pour ñaan Sonko ci boppam ñu teg ko loxo fitnaal ko wax ju réye noonu bi ñu ko déggee bi ko sëriñ bi déggee ak njaboot gi seen dënn dafa rëcc ndax njaasaan toogewul loolu kunte it xamuñu loolu kenn mosu leen ci dégg Sonko doomu senegal la comme doomu senegal yëpp moo ki nga xam ni moo juddoo Njaasaan nekk doomu senegal la ñu yemale tooñu li suñu diine ba ñu war a yëkki suñu kàddu ci mbir moomu bu ko tooñoon itam bala ñoo yëkki suñu kàddu dana am fu ñu jaar ak moom ndax doomu aadama la ñuy doomu aadama kon wax jooju journal bi ko wax di réew mi quotidien nañu xam ni tooñ nañu communauté bu toll ni communauté xaadiriya muy famille kumtu yu commencé ci xalif bi ba ci ki gën a tuuti ak ñi bootu ci tariqa bi li ñu li ñu bëggoon nag moo di journal bi wax ñu loolu mu wax fan la ko jëlee Njaasaan waxoon naa ko fi dama wax ni kër la kër gi dafa am boroom kër am bunt kenn amul sañ-sañu dugg ci kër googu te yëg lu woo bu borom kër gi may la ndigal wax naa ko ñuy bàyyi xel ci information yiy passé ñi nga xam ne suñu ndaw yi nekk ndakaaru jokkoo nañu ak directeur journal bi wax nañ ma ñoom ne ma nee nañu erreur la ci ñoom erreur bu mel noonu nag ñun mënuñu ko jàngat xaw fan lay tegu bu fekkee ne erreur la na wóor ni tooñ nañu tooñ nañu kunte yëpp nag askan wi yëpp lañu tooñ mais tooñ nañu tariqa xaadiriya encore yamul nag Sénégal mais ba Afrique la parce que loolu ku ko dégg di ab jullit ñu ne diw ngi daje di ñaan di jàng kaamil pour ñu alak diw fitnaal ko loolu lu lu doy waar la kunta xamul loolu kunta li mu xam moo di ànd ak nit ki ci diine ak yërmande ànd ak moom ci nite ak dimbalante ànd ak moom ci dimbal dimbale ko ci ay xalaat loolu la kunti yu xam bu soxlaa buñ ko mënee faj-faj ko bu dawee ñëw buñ ko mënee làq làq ko ak nit ku mu mën a doon ci àddina ba keroog ñuy xam li tax mu làqu kon ñoo ngi yëkkiwaat suñu kàddu di wax wax jooju ni Njaasaan waxu ko mësu koo wax du wax wax ju mel noonu du ko digle du jege fu ñu koy waxe ay jaami yàlla dong lañu te nag li ñu yàlla digal mooy nañu dawal yërmande ci kaw jaam ñépp waxuma nit waaye mala sax boo ko sottee yërmande yàlla mën na ca mën na ca dëgg ba yóbbul àjjana kon muy bépp doomu aadama bu nekk biir Sénégal ak loo mën a def ak noo mën a mel kunta mosul taxaw mukk di jël kaamil mbaa muy waaj benn wàccaayu ñaan pour yàlla fitnaal la xanaa kay su fekkee ni sax da ngaa nekkul ci njub kunta mën naa ñaan yàlla pour mu jubal la waaye du ñaan yàlla pour mu fitnaal la loolu kon du wax ju yanu maana kon daal ci kàddu sëriñ bi ak famille bi kàddu communauté xaadiri yëpp nag ñu ngi yëgal Sénégal di yëgal bokk yëpp ak ñi ñuy seetaan ni wax jooju amul fenn fu mu sës ñi ko wax amul fu ñu ko sës tey tooñ nañu ba ci kanamu yàlla te tooñ googu nag metti na ci suñu xol te duñu leen ko baal loolu daal lañ leen bëggoon a wax parce que erreur yu mel noonu mënuñu ko bàyyi mu paase kon ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp mais ñi nga xam ne ñoo ñëw tey jël si ko itam doon ñoo xam ni tàngam nu ñu benn yoon ci yu mel nii bu ñu ñëwee itam di jël lu mel noonu di ko tas fi ñu ko war a tasee ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla gën leen dooleel gën leen a euh, may ndam gën leen a yëkkati barkeel seen wërsëg ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni tey weeru gàmmoom taxaw na ñu ci ñaan yàlla Sénégal gii yàlla dafa ñu ci jàmm rekk nag ak dal nawet bi nga xam ne am nañ ci yaakaar yàlla na ko yàlla mottali lépp loo xam ni askan wi tiit na ko yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla dox digganteem ak loola lu mu bëgg ci ak yokkute itam réew mi soxla ko ak ñi ko ŋànk yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu yàggale réew mi fa ñu bëgg mu yàgg fa te lépp nekk njëriñal Sénégal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.